waaw tàndar moom jamono ji macha allah bëri na si marché bi trop waaw c'est que tàndar ñu bëri yaakaar nañ ne ren amul mais am na waaw te seerul tamit waaw lu waaye am daal man nga am tàndar ba ñu ko daan gisee ci marché bi par rapport ak euh, tey dafa dafa jafe dafa wute parce que gis nañ ni daaw dafa tuuru woon mais ren pour nga gis place bu koy jaay sax euh, problème la. waaw dëgg la c'est boo gisee lu waral loolu noonu. Euh, heure tàndarma bu jotee parce que ñi voyage di dem Dubaay ñi daan indi bool ñii di indi yeneen bagage ñëpp tàndarma la ñuy dugal léegi nag bu ko defee tàndarma bu tuuroo seen loxo bu déwénee duñ ñi muy indi loolu moo tax euh, ni mu bëri woon daaw bëriwul ko ren mais ren ren la gën a bëri non daaw la gën a bari mais ren ji la gën a yomb waaw ren ji la gën a yomb c'est que man maa ngi doon jaay 8000 ci commencement bi te ren 7000 ay jaay waaw li ngay jëndee moo yomb. li may jëndee mooy yomb waaw. kon tàndam mu bëri na fa jamono. waaw Dubaay moom dégg naa bari na fa lool dégg naa lu waay am am tàndam mais nag dafa bëri ay façon tàndam am na yomb am na seer waaw. waaw différence bi de si neexaay bi la rek na tànnam xam ne am ñoo xam ne ni duñu lekk tànnamu 10 kilo bi tànnam bu nekk si paquet bi moom la ñu lekk am ñoo xam ne tànnam bu nekk si 1 kilo bi moom la ñuy lekk mooy bu jar kilo 3000 dafa am bu jar kilo 3000 am am bu jar kilo 1000 francs 800 loolu mooy différence bi quoi. Mhm. loolu ngeen ñu gis ne ngeen stocké ay tàndarma mais est-ce que askan bi ñu ngi ñëw jënd si. waaw macha ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw bu baax ñu ngi sant bu baax wax dëgg yàlla. bu suukar koor yi ñoom ñu ngi ñëw. waaw ñu ngi ñëw mais nag waroon nañu mën a gën a ñëw xam naa comme que weer bi dee na tey la 5 xëy na dinañ gën a ñëw quoi. waaw dinañ gën a ñëw waaw. kooru euh, musulman yi tombé ak bu ko bu bu bu yi euh, jàpp nañ ni loolu moom euh, neex na ci Sénégal. Ah, waaw rawatina yéen commerçant yi. waaw macha allah neex na si Sénégal rawatina ñun commerçant yi waaw commerçant yi dinañ si gis suñu bopp dëgg yàlla saa yu ñu ngi waajal seen kii bi xaw ma lañ ko woon xaw ma nu mu tudd ñu koy yi ñu ngi ñu jaay tige dege ñu jaay gerte ñu ngi si gis seen bopp koor gi tamit ñu jaay suukar ak meew ak tàndarma ngi si gis seen bopp ñu ngi sant yàlla bu baax waaw ñu ngi sant yàlla. loolu gis nañ la nga def ay stock est-ce que dafa am yeneen yoo xamante ni moo ci war a topp. waaw am na yeneen yu si ñëw am na yeneen yu si topp waaw ñun moom nii lañ koy jàppantee rek. tàndama rek ngay yëngu. ñun tàndama mooy même bu dul koor gi mooy suñu même bu nekkul koor gi sax tàndar mooy suñu liggéey voilà. tey ñu bàyyi la rek euh, nga woowaat ñi nga xam ne ñooy say client. waaw maa ngi woo sama client yi di leen wax ne stock bi njëkk bi jeex na deuxième bi ñëw na waaw nañ ñëw jënd si balaa moo jeex waaw. prix abord daaw ma fi am 7000 am na fi yu si paquet bi 9000 waaw yu nekk si 250 euh, grammes bi 500 grammes bi 9000 10 kilo bi 7000 yomb na trop te tànn bu rafet la boo ko jëndee da ngay kontaan clients yi dañuy kontaan pour jënd waaw sant yàlla neex na trop koo ren gi moom sant allah sant nañu baax a baax a baax waaw ñu ngi leen jaajëfal baax baax a baax a baax ok nekk la. maa Balla Touré. bu fekkee la marché Gueule Tapée tey ñuy waxtaan ci wàllu tàndarma bi ñu gis ni euh, commencé naa am ci marché bi ndànk-ndànk est-ce que yéen commerçant yéen ngi ci gis seen bopp. ah tàndarma bi de daanaka kees gi ñu ngi koy jëndee cent mille bi ñu fi jaayee diñ fi diñ fi am lu bëri quoi waaw. est mi ngi am ay retour ci. tuuti rek instant yi kay añ fi nekk di daw dépasse rek ah bañ a dem dëkk ba toog quoi. moo tax daal ñu ne fii di. nga ci jaay tàndam wala koor ba koor nga koy def. laa koy def waaw en ah, ah, bu dul koor en ah, lii jaay ndaaw waaw bu koor gi ñëwee tàndal ma rek nga mën a jaay ok loolu lañ jaay. ñaata ngay jëndee gi mi ngi toll si cent mille ñaata nga ci am. boo ko jaayee yaa naa deux mille yi nga fi am deux mille waaw. day yàgg si ñun de instant bi koor gi kañ la commencé moom barki de moom ah maa benn kees gi nii ba tey waaw. seen arrangement ci ngeen di ndog. waaw fi ñu ndogu en ah, lu mat en ah, ah, deux mille cinq la ñuy way fi la ñuy fay weer wi tamit bu dee. daaw message ngay état bu Sénégal yéen jeunesse bi ngir mu leen jàppale ci liggéey. moom war nañu faa jàppale moom waaw wax dëgg yàlla métti na moom dañu bañ dem. dañu bañ dem dëkk ba toog wala ñuy ne fii di wala ñuy jël alalu jàmm ah ñu wax métti na moo wax dëgg fa yàlla ok merci beaucoup. sëñ bi nuyu na la. waaw fay naa la soxna si. Bakary Camara. fekk la ci marché Gueule Tapée tey nag ñuy waxtaanee si lu jëm ci wàllub tàndarma ñu gis ni chaque at tàndarma da daan fees fii jaaykatu tàndarma yi rangaloo mais ren gisuñu ko est ce que mën nañoo xam cause. waaw parce xam nga dëkk yi nu mu war a que. xaalis moo amul dëkk bi rek waaw xaalis boo amul dëkk bi te tendrement bon doxatul comme ni ñu doon doxe tamit parce que nit ñi dañ doon jël lu bëri bëri bëri bëri di jox ay sukkar koor tendrement koor mais ren moom dafa mel ni gars yi dañ ko dañoo wàññi seen loxo loolu sax parce que bëriwul comme daan la bëri wax dëgg yàlla moom waaw. gis bi dafa yokk parce que daaw doon jaayee 700 ñi jaay 800 mais ren 1000 francs la wax est ce que mën nañoo xam lan moo waral loolu. waaw parce que bëriwaay moo tax dafa bëriwul moo tax. waaw dafa bëri moo tax mu ñëw ba 1000 francs ba 1200 sax dañ koy jaay sax mais gën a yomb daal mooy 1000 francs daal xam naa lu mu bëriwul moo tax mu egg ba foofu noonu sinon daaw moo gën a moom waaw. bi ñu gën a gis mooy bi nga xam ne dafa xaw moom moo ëpp bu tooy bi dafa dafa wàññeeku. waaw bu tooy bi moom wàññeeku baax parce que bu wow bi moo gën bëri mais nit ñi bu bu tooy bi lañ gën a ndax nit ñi seen bëñ yi baaxul léegi. waaw ñu bañ bu bu nooy bi moo gën a neexee yéen parce que man mii bu tooy bi moom jeexal naa ko sax li mu si amoon bëriwul sax mais taxawul sax waaw. plate bi euh, est-ce que mën nañoo xam ndax yi nekk ci plate yi ak yi nekk ci mbuus ñoo yem. non yemuñu prix nag yaa na boobu am na léeg-léeg ñuy jaay ko mille francs 1200 sax mais be bu toob bi bi nekk si mbuus bi léeg sax boo dañ ko jaay 900 sax mooy 1000 francs waa mais xam nga même kii la sax mais boo gën a moo gën a rafet daal quoi si kii gis-gis bi quoi. Mhm. ren moom euh, dund bi seer looloo tax daal suukar koor am vraiment ren moom wax dëgg yàlla lépp cher moom nit ñi sonn nañ lool xamul ndee noonu suukar seer na tendement bi seer na ceeb bi diwlin meew aussi tamit noonu waaw manqué na waaw lool lool lool sax tey tey boo amoon message boo xam ne moom ngay lancé état bu Sénégal ndax korité bi incha allah léegi mu ñëw te lu mel noonu moom dina tax muy gën a waaw mais dégg naa état bi moom dégg naa waxtaan na gars yi sax waaw balaa boo Korité incha allah xam naa dina gën a wàññi affaire dina gën te dina gën a wàññi moom ndax nit ñi moom vraiment sonn nañ lool xam naa état moom mu ngi gees mu ngi waxtaan ak yi moom xam naa de moom ku bëri yërmande la moom yi. aussi tamit ñaari koor dafa am ndax suñu mbokku chrétien yi ñoom itam ñu ngi ci seen weer. waaw ñoom seen presque seen bos jeex na seen bos jeex na ñun ñoo ci des fu mu ne nii ñu ngi kenn nañ góorgóorlu waaye incha allah. ok merci jërëjëf